alaikum Sénégal Aduna, àdduna alaikum mbokki téléspectateur yu Fekh TV salaamaaleykum mbokki internet yi euh, amati mbégte bu weer di jàkkaarloog yéen fi ci seen émission Fond Noir ànd ceeg sunu papa un grand musicien ko xamni ñepp a ko xam kenn duko ragnalé, kenn du ko kenn laaj Père Aladji ñu ngi lay nuyu. waaw ma ngi lay fay. ginnaaw bu ma sant yàlla di julli ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di sant sama ñaari waajur di sant sama sëriñ sëñ Cheikh sëñ Mbacke di sant sëñ Touba di sant sëñ Mouhamadul Habib sama xarit ak sëñ Aziz Abou Madiane ak sëñ Cheikh Ndindi ak njabootu sëñ Touba gépp di ziar xalif général des Baye Fall ak njabootu maam Cheikh Rahima Fall di eh, di ziar tous les xalif bu ma nuyoo Eh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy ñoom ñooy yor aat ñoom ñoo yor eh, diine ji kilifa diine yi eh, di nuyu kilifa aada yi di leen nuyu yéen ñi nga xam ne yéen ñëw fii seet sama tey muy Fekh TV maam ci mbégte lool borom télé bi sama xarit du ko baax waaw féexal nu féexal waa quartier beeg waa koñ bi ba tey ñu ñu ba mën a wax ak yéen. Père waaw euh, bala ñu tàmbali waxtaan bi rek euh, ñu bëgg la laaj sa diggante yaak artistes yi artiste nag bu ñu ko waxee yaatu na euh, nan ngay jëflanteeg yaak artistes yi ak jamono ji. waaw xam nga aar dafa yaatu. Mhm. ñu bokk bi ñooy laxa sooy goj na nag artistes yi jàmm rek lañ seq. Mhm. waaw di déggante ci jàmm lu sa waay ci sa morom muy jàmm nga bokk ak moom mbégte li bu dee ayit nga fe bu dee eh, eh, eh, xew xew ayit waaw ndax jàmm ak ayit lañu fekk bu dee xewi ayit wala xar ngeen bokk ko ndax ñu ñëpp benn lañu te ñoo bokk ndey baay waaw. d'accord père ban année nga commencé def musique. man depuis soixante treize soixante quatorze. ndax xam nga avant musique bi. dama daan way ci ay kassak di way ci lamb di way ci simbu waaw di way eh, ay jàngi xaadir sax dama ko daan def waaw d'accord di way mbapat yëpp dama ko daan way waaw d'accord kon fi xalé yi tollu ni di dem di yi musique bi yobul len fu ne est ce que yeen seen jamono amon na lolu ah man day bañ na ko ba dama ñibi ci tok sax waye dama daan tourner won na eh, ki nga xamne mo ne sunu wet ma toge ci rew mi yagul ma dem ba xamne comme yalla dogal na kilifa la te borom njabot la te pour nga meuna éduquer sa dom il faut nga tok tolo nak nak fimne musique bi saturé na ku dog dem yoni mom ken momatu ko. Euh, ni nga toge ni nga nekk nekkee ni tok ni te revenu dan am ci musique bi yow ya ko wax ne nga da nga dan dem ci way ci lamb yi di mbab maanaam di way ay wayu khadr di dem ta jamono yi nga nekk ni tembe monotoko, sa santé monotoko lu bari mayetu lako permettre lako est-ce que yow sa mag ñoo nga doon wax manam musicien yoy nga doon wax tay ñi lay gessu ci financièrement wala ñu tek la loxo dila jappalé no xam nga musicien ni ni def ba moko defé am. waaw ndax vraiment ñom ñi góorgóorlu seen wal sen wal man ta gor góorgóorlu sama wal ah fi de musicien mission yu mag yi defe naa ne boo ci gisee ku yëngu ci yëngu léegi daanaka su ma yeboo ne bareetul kenn moo ci yëngu muy Youssou Youssou Ndour waaw. waaw d' accord moom dama doon bañ a tudd trop. waaw est ce dina la gëstu parce que xam na père El Hadj Faye bu baax. yu sundur xamna koy El Hadj Faye waaw yàgg ngeen a bokk ay ay ay ay ay concert yag ngeena bokk ay plateau bu la soxla peut-être cœur dina la won la ka jàppale ma ci li est-ce que relation bobu nonu ba legui ya ngeeg mom ak Youssou Youssou de xana ñàkk ge gisee ay buñu ñu dañuy mel ne sow ndax dañu yag depuis Miami la ba étoile de Dakar yalla dogal ku nek dem bay sawar waye terewul kóllëre ngi dox sama diggante ak te itam fàttewuma benn yoon wax dëgg yàlla. waaw mi ngi may jàppale bu baax lépp loo xam ne sama tiis la tiisam la lu sama naxar naxaram la te defe naa ne lépp lu ma soxla xanaa mu ñàkk koo yëg waaye bu ko yëgee na ca eh, bay weewu weewu tànkam. na ca bay weewu tànkam loolu am na solo. jërëjëf père euh, jamono ji ñu nekk nii dañu gis euh, yéen anciens musiciens yi. ñu ci ëpp. du ma wax sax moo raté ndax raté dafa ñaaw ñu ci ëpp gisatoo leen ci scène musicale bi. yow koy wax nga raté. non du ma wax raté. waaw ndax dañ na xar day weesu mboote. Mhm. waaye ñun ñi nga xam ne dañuy def tradi moderne traditionnel. Mhm. léeg ñu am ay programme yoo xam ne xalam lay doon rek. Mhm. ak ndënd. Euh, ak benn guitare wala kora. ko defee mu doon xawaar rek ñu waxtaanee ko. léeg-léeg ñu moo ma fi ab tëwëg mu dem suy xawaare def sama ab tëwëg li koy sama wërsëg ma jëlee ko fa ñëw ñibbi si def sama njaboot keneen noonu keneen noonu musique amul âge amul âge amul frontière. d'accord waaw. ba tax na li ci suñu wàll daal kuñ ci woo. ñu mën caa dem ñu dem ca bu dee yëfi xale nag ay sabarooke programme ay rëng-rëng ak yu kenn xamul tël-tël yooyu moom dañ koy bàyyi gone ndax dépassé nañ loolu. ndax boîte de nuit boo dem fi mu ne jamono yi. say morom set sët nga fay fekk ak say morom dom wala say sëtaat waaw te fi nek nek nekk sur chaîne ba pare nekk fa ak ay mbuusa mbuuj moom defe naa ne gënul ci mag. mbokki téléspectateurs yi toujours rek ñi ngi ànd ak Père aladji Hadji Faye euh, fii ci Fond Noir li ma leen ko faral di waxee euh, nit ku ne rek ak euh, nañ nañ lay présenté nit ku ne ak ni ñuy waxtaan ak yow moom uniquement dañoo déplacé wu ñëw fekk ko ci këram pour rek laaj ko carrière musicale kaalam ak yeneen ak yeneen yu ñu war a waxtaan Père El Hadj est-ce que am nga regret ci musique. mosuma ci am regret. ba nii nga toll nii. waaw ndax lu ma am ci laa ko am te maa ngi sant yàlla te yàlla di ma suturaal bu baax a baax nag wax dëgg yàlla. d'accord waaw. sa wàllu feebar. waaw nga toogee mënoo dem yaa ngeek am problème mu tànk. mënatu ko gérer mënatoo ci def lepp ta yaakaar naa ni soxla nga ay ay ndimbal xeyna peut-être luñu wax rek nga ni maa ngi sant yàlla d'accord ya ngi sante yalla bu baax mais xam nga fi jamono juñ tollu maa ngi sant yàlla maa ngi tamit euh, euh, walu kom kom fa nga genn ko pour mën di faju pour mën di dundu pour mën di nek ci li nga xam ni suñu borom tamit bëgg nako ko ah. febar di nga faju waaw waye nak am na ñoo xam ne yàlla buntu tëj bunt tëj palanteer yàlla may na ma ñu baax ñoo xam ne lu ñu yëg ci man muy bànneex muy metit nañ ci bay seen laaj nañ ci def lu ñu man buñ ko yëgee te itam wax dëgg yàlla li ma naan maa ngi sant yàlla dëgg la bougé wu ma jóge fi waaye ñàkkuma dara ndax fi mu nekk sama garab yeeg ordonnance yi lépp wax dëgg yàlla ah, samay nit a ngi jàpp. alhamdulilah alhamdulilah samay jàpp te fu may dem si laay jël. mu yóbbu moom ma dem def sama consultation waaw bu ordonnance yi la lu ma ci ordonnance bi ma ci am ñoom ku ma ko ci jox mu jëndal ma ko te itam wax dëgg yàlla eh, ki nga may defal pansement yi day déplacé wu di jógee nu mu tuddati ba eh, cabinet ñëw fi di ma defal ay pansement mooy déplacé wu waaw ndam daal comme yow ci ni ma ko dëggee na ma amoo benn jafe-jafe ci wàllu tànk bi ñun ñee lay gis di la yërëm mais yow daal amoo ci benn jafe-jafe waaw am naa ci jafe-jafe sax ndax lépp mat waaw waaw. amul benn jaam boo xam ne lépp man na. <laughs> ku ma ci jàppale ma jël wax dëgg yàlla. <laughs> dëgg rek lay wax. waaw ndax lépp sama lépp matul. waaw léeg-léeg am lu la këtt ne jonn ma bëgg koo te duma ko mën a faj wax dëgg yàlla. <laughs> waaw ku ma ci jàppale naa la sant gërëm la ah, waaw naa la sant gërëm la. wax wax la lu baax wax dëgg yàlla ndax koo gis si àdduna am na ay jafe-jafe ba ci njiitum réew mi am na ay jafe-jafe moo tax muy génn di lijjanti ji di ko indi ci réew mi keneen noonu keneen noonu koo gis ci àdduna boo gisee ni ñuy di liggéey jafe-jafe tax suñu da nga tëdd sa kër la lay nga soxla di la fa fekk waaw. d'accord Père El Hadji ku ko dimbali. waaw. Père Alaaji ku ko dimbali mu jël. ku ma dimbali ma jël. Père Alaaji am na tànk bu metti per Père bi mu feebaree gi léegi mi ngi bëgg a yàgg. te boobu ba léegi mi ngi tëdd fi mu tëdd. kon nit ñi war nañ ko mën a dégg. dëgg la ñëwuñu fi pour siwal la. Hmm. ñëwuñu fi pour weeja la. ñëwuñu fi pour yokk promotion. dañoo ñëw dañoo ñëw pour social. waaw ma ku ne xam na Père Alaaji Alaaji fay kenn mënu koo defal promotion. Hmm. yàlla def na ci moom bañ koy dégg juddooguñu hmm. tey kon li ñu war a wax ak askan wi ak population bi du ñàkk ay nit ñu baax bu soobee yàlla ñu mën la jàppale parce lépp retour ci yow la jëmaat ndax ñun it soxlawuñu ci dara tey dañoo bëgg it ah moom bu ñu ko mënoon wala bu ñu ko mënoon a am hmm. wax dëgg yàlla nga yàlla may la wér nga mën di dox ak sa tànk di dem fu la neex. di dem say activité di def la neex ndax yaakaar naa ne amal sa bopp mu ëpp koom-koom. dëgg toog ñu ñëw di la ko indi waaw waaw. d' accord léegi Père Alaaji pourquoi pas mooy li ma la wax pourquoi pas artistes yi nga xam ne ñoom am nga ak ñoom relation ba tey jii fi nga am lan moo tax. amoo collection wala yéen amu leen association des artistes wala lenn ba tax ñoom tamit ñu wër laa féete foo xam ne nii wax dëgg yàlla tamit da fay sentir sa bopp. ndax yow ay benn benn rek ñu ngi wax ñoo lay dimbali. ndax te ñoom lu ñu yëg lay doon ñooñu buñ ko yëgul duñ ñu mën a dimbali est-ce que tamit sax ñi ngay wax yëg lañ ko. waaw su ma yeboo am na benn panel boo xam ne tous les ñu ngi ci biir yoo xam ne wax dëgg yàlla ñu ngi def lu ñu man pour jàppale ma. Mm-hmm. waaw te bu ñu paree lii ma la wax di gis naa la ko naa la naa la ko prouvé. panel boo xam ne tous les chanteurs ñoom ki ne laame ngi ci woykat bu na ci réew mi euh, euh, booy euh, Ousmane Ousmane Seck ñoom Mapenda Seck ñëpp ngi ci biir panel bi waaw wax dëgg yàlla ku ci am jafe-jafe ñoom ñëpp di nga yëkkati li nga am daj ñu dajale ko mm-hmm. yebal Abdou Raas mu indi ko Abdou mm-hmm. waaw ki nga xam na ne nag mooy jiite panel bi ba fii ba bitim réewa ah. fii ba diaspora ñu nga fa waaw groupe tous les chanteurs yu nekk Sénégal ak diaspora fépp Allemagne Suisse Canada fépp waaw panel baa ngi nii ma yore waaye ñoom yëg nañ seen feebar te am na lu ñuy waaj te bu bu yàlla sottalee incha allahu ah, def naa ne sama lépp matul it naam lu bari lu wàññeeku ci samay jafe-jafe waaw eh, ki nga xam ne moo ko jiite nag mooy Cheikh Jaxate Cheikh Jaxate di fële mi ngi Europe fële bureau nekk waaw. ah jërëjëf Cheikh Jaxate de bu dee yaa ngi ñuy dégg ah ndimbal moom wax dëgg yàlla bu mënee gaaw it moo gën ndax xam naa ni paa bi daal soxla na ko dafa nekk nit koo xam ni nit ku gore nit ku mat. nit ko xamni ne mënta tok nan nangam nangam nangam waaye dal xamna ni euh, soxla na ko ko dimbali. Euh, père euh, jamono ji ñu tollu parents yi xalé bu góor wala xalé bu jigen bu juk bëgg def ar ñu téré la ar bi baaxul kat yi nangam da ngeen di tox da ngeen di nan noko gisé ban conseil nga am ci digënté parents yi ak xalé yi nga xamni moy nouveau talent yi gën légui jamono ji nan dañuy ut di def musique. wa xam nga wajur wu nek na mu gisé amna ñoo sax dañuy jël. seeni doom di leen jàng jàngal ci musique am na ñoo xam ne bëgguñu seen doom def musique waaw liggéey boo gis am na ñoo xam ne seen doom dañuy bëgg dañ bëgg seen doom def ko am ñoo xam ne seen duñ bëgg seen doom def ko ba tax na xale bu nekk li nga xam ne moom mooy amuram euh, da nga ko ci war a bàyyi te di ko seetaan di ko ci encouragé tubaab lu doomam di moom la koy objet boobu la koy wutal mu di ko màggale bu demee ba màgg ah, ci métier moom lay sóobu muy maçon muy muy électricité muy eh, moo xam eh, électricien moo xam métier mu mënta doon boo ko gisee da koy jëndal ay jeu boo ko gisee na doom ji lii la gën a bëgg ci jeu yi ah, loolu ci loolu la koy encouragé di ko ci jàppale te bu màggee defe naa ne foofu ci loolu lay mujj mi ci moom waaw. loolu nga ci tontu mais daal gisoo ko ci mànd gisoo ko ci tox. waaw lu ci ñàkk. même mécanicien bi léeg-léeg nga gis ci ku ci apprenti bi léeg-léeg nga gis ci ku ci euh, bi léeg-léeg nga gis ci apprenti boo xam ne day def la. mais est ce que mànd boobu noonu baax na. parce que mànd boobu mën na leen a mën na seen carrière. Ah, ku nekk nag mag gon xale bu ne. dañ ne mag sa mag na sa magum bopp nga waaye gone gu ne sa gone bopp nga ndax. gone moom bu dee ba xàmmee rek war naa mën a xam xàmmee lu baax ak lu bon waaw lu koy avancé ak lu koy delloo ginnaaw. Mhm. ñàkkul nag ci aar bi ay boo yoo xam ne dañuy taxawal yor seen bongo xew wuñ leen woo ñu dem. ay bongo maa waaw leen woo ñu dem luñ leen woo ñu dem man ñooñu sax ay yalwaankat laa leen tuddee. ñooñu du artiste. waaw duñu ay artiste. Mhm. xam nga artiste tudd artiste. Mhm. artiste la tudd. da ngaa war a artiste doomu aadama yi. waaye dafa am ay aar ak ay yokku tiis. yokku tiis ñooñu moom su ma yeboo ma boo ci yokku tiis yi. ñooñu moom dañuy yokku tiis ndax ñooñu seen i bëngo nañu yor di naan ak logi pion ak di gens ak waaw duñ jekku mu dem. waaw hmm. d' accord ñooñu moom dañoo dañuy mubboo artiste rek waaye duñu artiste. waaw tiis lañu. d' accord ndax ah, artiste war na laa fekk ceew tiis génn la si waaye war na laa fekk ceew tiis du ko yokk. Hmm. waaw artiste yi nag mooy sama kalaas gi. nañ dañ leen fekk ci tiis toog wéeteeg seen bopp déglu la nga yedd leen mbaa nga am loo def ci ñoom. Mhm. waaw ñu dégg la après topp say conseil mu jariñ la d' ah, ñu ne xam ngeen ko père Alaaji Faye per Alaaji fay la de père Alaaji Faye Samina Samina ku ne déggoon na ko fi mooy paa bi nga xam ne moo moo naroon ne indil Viviane problème xam nga Viviane moo jëloon waayam nag jël ko Viviane dafa doy waar de mais nag baal na ko baal nga ko de. waaw ah ginnaaw waaw te nag itam wax dëgg yàlla dafa def lu rëy. Viviane dafa def lu rëy rëy. maa xañ na seytaane ñëw rek. waaye ku toll ne Viviane di waykat bu mag man li muy def lool macha allah. Eh, reprendre sa way wax dëgg yàlla. loolu dafa neex. dafa doon lu rëy waxuma la dafa neex sax waaye dafa doon lu rëy ndax waykat dafa nekk. waaw père lu tax nga ah, indiloon ko problème mu mu choisir leen. waaw kon lu tax nga indiloon ko problème. Eh, seytaane wax naa ko ci début ba. waxoon nga ko ci début ba waaw waxoon naa ko ci commencement ba seytaane moom buy ñëw rek. est-ce que père bi woowu la ci roq rek déedéet wóor na sëñ Tuubaa. père yaa koy négocier de billahi wallahi wa taala. ah kon dëgg la bëgg a dégg ñaa ko du ma tax a sant Mendy. dëgg la du ma nekk kenn yàlla nga lay nuyu te gisuma ko. dëgg la waaw bu ma ko bu ko defoon damay taxaw wax ko. ndax wax dëgg yàlla ku la defal lu baax da ngaa war a mën a taxaw ko ba àdduna dégg ko. dëgg la waaw seytaane ñëw na te maa ngi koy jégalu nag bu baax a baax. Mhm. maa ngi koy jégalu bu baax. moom moom jégal na la waaw. te it bu ma tooñee it jégal na ko. Mhm. billaahi wallaahi wa waaw ndax. Viviane bu reprendre sama morceau am sama morceau am artistes yu bari yu fi nekk mënoon na reprendre sama morceau. Mhm. jéggi leen fi reprendre sama morceau. non non seulement dafa doon lu rëy waaye dina ma dundalaat nañ nañ ne ah. lii kat Alaaji Faye ko ah, waaye Alaaji Faye naa waaw. d' accord sa carrière musicale. te avant Samina bi Congolonko. maa ko woyoon boobu tamit yaa ko woyoon. waaw jin leen jin leen jin leen jin naa kanaare kanaara yaa mën a dem. ndeysaan. waaw kanaara yaa mën a dem. tey ku la tàmm ba tam tamal la ba tàmm la du tukki yàgg fu mu mënti demit dikk demit dikk demit yow mi jëm kanaara neel baab cëli dem naa. damaa feebar nag baat bi xaw a sonn. waaw voix bi mais mu ngi fi ba léegi voix baa ngi fi ba léegi. waaw xam nga boo tëddee lu yàgg waaw voix baa ngi fi ba léegi nag. waaye kon Viviane dafa demoon ku la ku nekk dafa nekkoon ku la estimé moo tax. mu doon ci la te wa yooyu dafa neexoon. ma regretté nag li amoon lool. macha allah dëgg yàlla. waaye nag yàlla na ko yàlla dolli jàmm borom baax dolli suturaam gën a wéral baatam. dëgg la dëgg la père ba la ñuy tëj sa carrière musicale ban musique la ci gën a neex. man musique yëpp ma neex ñoo yow ci li nga way am na morceau bu la ci gën a neex boo xam ne way nga ko ba pare toog ay guddi guddi di ko naan lii ma lii daf ma neex xam nga nit di nga am yére bu la gën a neex di am soxna bu la gën a neex di am doom mu gën laa neex maa yow sam carrière musicale lan moo la gën a neex ci sax man aw ma lu ma gën a neex li gën a neex nit ñi lay wër. yow ñu kon li neex nit ñi. Mhm. moom ma neex te yaakaar naa ne sàmmi naa bokk na ci li neex nit ñi. kon mhm. loolu lu ma neex la. sàmmi naa daal moo tax bu ndaw si laalee nga dalul ci kawam. arriéraat loolu laay bañ a dégg. arriéraat su ma seen wax jooju sax. waaw dootuma ci wax ndax. d' accord ah, jégalu naa ba noppi. Mhm. te kenn du jégalu ba pare wëlbatiku di tooñaat waaw loolu leer na jërëjëf fond noir la woon. ñu nagu la woon ak Père El fay per Père fay ku nekk xam na ko lépp ci àdduna def na ko way na lu neex lu ne def na lu neex lu ne voyage na fu ne def na lu ne mais tey sunu boroom dafa def ni tànkam mënatu la dem febar ah sénégalais yi yeen ñiko mën la ma leen doon wax ci fond noir képp ku ko bëgg dimbali képp ko xamné bëgg nga ko taxaw père aladji mi ngi ni la mënon demb mënatu ko tay lam daan def demb mënatu ko tay lam daan wax demb mënatu ko tay soxla na ku ko dimbali soxla na ku ko jàppale soxla na ku ko père aladji ñu bayil nga tej waaw jërëjëf li may tëjee moy ah di sante di borom télé bi euh, di borom taw féex yal na yàlla dolli féexam. yal na ko yàlla gën a féexal. na yàlla dolli jàmmam ndax bu féexee rek ñu féex. kon ku mel noonu ni naan doomi ñay boo koy ñaanal doo ko ñaanal rëy da koy ñaanal mu gudd fan. waaw duma def lu dul ñaanal ko rek mu gudd fan. ku baax la ku yiw la. ku fexe ñëpp. waaw bu loolu weesoo ma di leen gërëm yow yow mi nga xam ne yaay journaliste Euh, déplacé wu ak sa caméraman ak ñi nga xam ne ñoo la encadré di nuyu nak sama rakk ji Lamine Naar mhm. doon ko baax fu ma seen damay akkawliku di nga maa bëgg maa for wan fu mu romb fu ma romb nag mhm. damay seen sax fo sori naan ma père ma ne ah kii sama waay la taxaw ñu jàmm sant nuyoo ci jàmm kon ku mel noonu euh, du ma def émission bu toll nii te gërëm ko sant ko ñaanal ko gudd fa nag wér ah, di leen ñaanal yéen télé bi yéen a xam fu ngeen bëgg a yegg yàlla na ko fa yàlla nga tudd ak sëñ Tuubaa yeggale. amiin yaa rabbi na dem ba sut tele yi nga xam ne ñoo ne fii ci àdduna bi yëpp. macha allah jërëjëf kontaan naa lool. jërëjëf waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi fond noir la woon ñun ak père El fay Faye la woon fond noir xaar leen ci beneen numéro jërë ngeen jëf.